ginnaaw ba ñuy sante yàlla maa ngi wax alhamdulilahi rabil alamin bi ñu duggee si koor geeg jàmm génn seeg jàmm di profité ci occasion bi pour souhaiter à l'ensemble du peuple sénégalais une très bonne fête de Korité Korité jàmm Korité tawféex bu fekk njaboot yépp lépp mat ginaaw loolu maa ngi profité ci occasion bi aussi pour wax ne Sénégal gi nga xam ne ñoo ko bokk te kenn mënu ko xar ñaar yal na fi yàlla saxal jàmm mu nekk jàmm joo xam ne nii dina jig Sénégalais yi ñu boole suñu doolee liggéey suñu réew ba bépp Sénégalais gis boppam ci li nga xam ne nii ñoo ko bokk muy Sénégal. naataangoo yi nga xam ñoo bokk langue politique moom ay Sénégalais la rek comme yëpp dama yaakaar ni Sénégal eh, c'est notre bien commun eh, Sénégal ñi ñoo ko bokk ñoo ko moom. Eh, dañu war a def tout pour que Sénégal lépp loo xam ne nii eh, day yee fitna ñu moytu ko mais fexe ba Sénégal aussi nekk réewu démocratie ak lépp réewu liberté képp nag koo xam ne nga yëngatu ci wàllu politique loolu war nga ko xeex pour que Sénégal nekk réewu démocratie ak ak réewu liberté loolu bu amee rek jàmm day am te jàmm nag bu amul développement du am te bu développement amul eh, kenn du mën a gis sa bopp ci li nga xam ne nii ñoo ko bokk muy Sénégal te loolu mooy li nga xam ne nii mooy chart bi nga xam ne ñëpp dañ ci war dox kon nag nañu dox jàmm pour que jàmm jooju mën a law ci réew mi ba sénégalais yi mën a gis seen bopp ci li nga xam ne nii mooy alalu réew mi mooy koomu réew mi mooy sécurité réew mi ci jàmm ak salaam jërë ngeen jëf déwénati